la 31 décembre lay doon fii ci arène nationale diggante Boy Diop mi nga xamante ne bii déggagul muñal ak caatu ngewel mi nga xam ne ku taxaw ci yoonam mu fel la jàll ndaw combat bu rëy le 31 décembre ak Ndiaye production fii ci arène nationale cay Ndiaye production. asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu suivre sur Kewel Info di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu sama sëriñ notre responsable bu daata Moussa Chidine moom Moussa Chidine di nuyu kilifa diine yëpp en route vers le ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Diop borom soow mi ak ki nga xamante ne moom mooy caatu ngéwal mbayaar bi mu nekk combat boo xamante ni combat espoir la Fallou Ndiaye le promoteur numéro un borom date bu baax bi ah mu nekk combat boo xamante ne combat espoir la tey ku ma gis nag xam ne maa ngi fii jaxaay Mama Lamine numéro 2 war a jàmmaarloo ak ki nga xamante ne moom mooy Armée ñaari 2 ya ah. ñu xool nag 2 yi kat moo ciy gagné ba tey maa ngi nii si koñam ñee ma gis dafa mel ni ay doomu ndeyu Mama Lamine lañ Mama Lamine mi ci biir kër gi dafa dem saal fu mu nekk dañuy dem. xalil topp ma ñu waxtaan ak ñoom comme d'habitude. salaamaaleykum maa ngi leen di ziar ndax mbëru may sedd maa ngi leen numéro 2 maa ngi lay ziar. waaw delloo ziar wër. yaa ngi cool. waaw maa bu baax. matinale bu ni ngeen ko tegee nii nu mu demee nii. saa su ne nii lay demee de billaahi. Ah. waaw comme noonu rek. bay ah. Sëñ Fallu. vers le 31 décembre ci diggante ki nga xamante ni moom mooy Mama Lamine ak Armée 2 ñaari deux yi combat espoir boo xamante ni àdduna ba ñëpp ñu ngi koy xaar Mama Lamine ni muy waajee. maam moom mu ngi waaj comme ni doon waajee rek ànd waa ay mbokkam ak waa 11B am ñu leen lu suñu dëkkuwaay bii nii di jaay quoi. waaw mm. ah, comme ni comme ni ñu doon waajalee yeneen combat yi rek noonu lañ koy waajalee di ñaan yàlla yàlla mooy ñu ndam ci kaw Armée 2 incha allahu rabbi. Mm. maa ngi lay ziar. waaw ani maama. maama mu ngi si jàmm mu ngi wàcc. mu ngi préparé naaj. Ah, loolu yàgg na. di ñëw jàss ko armée 2. Ah. loolu du xalaat. dafa mën a xeex de. waaw yow armée da ko xalaat yow. mën a bëri. ñoo ko daax bëri daa ko xeex. Ah. armée day xaar lu bëri doole. xeex daanu. rang muy gaaw. maa ñu ngi lay fay yaay booy. ndékki laa fi. waaw ngeen ni pare waaj a ndékk ah. waaw mbër mi. mbër mu ngi si biir. loolu waaj bi waaj nañ lépp ñun pare nañ. Ah. waaw pare nañ bu baax. bu xaayee rek jeex na. kenn du waaw xam nañ ko rek. waaw xam nañ ko. wala roi bi nekk de. roi bi dañ jëli indi ko fii 11 ba. Ah. waaw. billaay noonu la fa demee. maama da koy jëli indi ko fii incha allah. bu neexee maa ngi yaa booy. yaa am pare nañ lépp. loo xalaat rek. bilaay armée de am na problème nag waaw ne ko waaj bu baax armée xam nañ ko tàngul bilaay kooku tàngul ñoo ko gën a tàng foofu bilaay ñoo ko gën tàngu tàng foofu armée day xaar ba 31 décembre dañu xaar ñu ñëw rek bu ñëwee mu xam ne lépp dëgg la dinañ ko duma dinañ ko daan. mais bi de ak kii. Euh, mobilisé nañ bu baax ñun bu ñu xam rek bu ñu duggee stade moom ñun ñëpp waxtaanee. billaahi waaw nañ. maa ngi lay ziar yow loo looy kii yooyu la la la ëlbatiku fii di kii nii wala armée dañoo yaakaar mooy ñëw. waaw armée armée armée day xalaat te ñun kuy xalaat kuy xalaat duñ daan. waaw ñun kuy xalaat duñ daan de. est-ce que yéen xam nga ñu yow est-ce que xamu Maama Lamine waaw. moom ne dañ kaa xam de xam lu nekk si moom lépp waaw bu armée day prime nga xam ne armée day xaar. a waaye lu lépp pare nañ fépp. amul xalaat de xalaat ñaax la jël rek dem. waaw daal xool nag. élevage daa mel kii blouse la sol de. daa mel ni élève nga de yow doo jàngee nga toog fii di xaar maama la yow. non dama wàcc nii léegi ma ne xaaral ma gis mbër quoi mooy loolu. Ah. waaw waaw. lu bari doole lu am doole. barki yàlla mooy loolu. dara du yomb barki yàlla. Hmm. waaw yow dañuy dem esaat xam nga daan ñibbi si xam nga soog a dem fàtte ji ñëpp yaa bëgg a xam. mooy loolu. noonu lay demee. acca mbokk internet yi ñu nekk buntu kër Maama Lamine ah kër Maama Lamine kan moom fa yóbbu kaay waaye xoole kii waaye yow kaay kaay lii neex na man lii eh neex na ma man lii neex na ma de xam man damaa bëgg xumbaay ñi daa mel ni ñoo yéenay tëggal Maama Lamine ah. waaw. mami yeewon oh, eh, e wayal mami yo mama Lamin wayal mami yeewona oh, alumbe wayal mami yo la Carolina Carolina eh, e bébé Carole e eh, non na la hiyo aluwata ya tomasa kwa e mami ye eh, mami mi ye eh, mami yo mami wata ya tomasa kwa mami ye eh, yo na ah, tomasa e kat moy sambar way we awe kan mooy sa mbër waay weya weya weya weya weya mama mama mbër waay e kan mooy sa mbër waay weya weya weya mama mooy sa mbër waay e kan mooy sa mbër waay sa su ma wéete ee ay borom yërmande woo naa la ee mama way naa la ma jooy lo am nga yërmande ee mama way naa la sa su ma wéete ee ay borom yërmande ee mama continuer matin bonheur ñu dem jëli maama Lamine indi ko ñu defaat ambiance ah léegi da ngeen di continuer ñu dem jëli maama Lamine indi ko fii ñu def benn show ñëwaat matin matin bonheur ah sa la ba tey acca waaye matinal bi neex na de ay asi koo lañ ñu kii xiif bi sax instant bi dañ na de xiif bi dañ na matin bonheur waaw daa mel ni ndékki baa ngi nii de daa mel ni ndékki baa ngi nii soxna si maa loolu ziar la. yaa am jàmm. yaa am jàmm baax. maama Lamine tey dañ seet. maama Lamine seet baax ku yaru. waaw te gëm li muy def tamit. waaw. yéen a ngi 31 décembre. di wàcc baax a baax a baax. avec ñun rek. tëppati. yaa koy jox maama baax sax. waaw. lan la gën a bëgg moom ah ndembe bi moom da koy laal moom. da koy laal def ci may neef. waaw. <laughs> aja xalila ba tey ñu ngi buntu kër ki nga xam te ne moom mooy Mama Lamine matin bonheur ah ñëw seet si ko nag doxantu tuuti xam nga def ko 9h ma ndax le 31 décembre du yomb fête la boo xam te ni macha allah ñu ngi ciy xaar ñëpp ki nga xam te ni moom mooy suñu tonton ah nekk tonton Mama Lamine dañ koy bàyyi mu sànni ay kàddu après ñu yóbbu ñu wan ñu mbër mi fu mu ne tons maa ngi lay ziar. waaw maa ngi ziar maa ngi leen di nuyu bu baax te yàlla suñu borom buur bu tedd bu màgg la borom yërmande la te baax la Mama Lamine sama doom la fa tabarak sama sët la fa tabarakallah macha allah mu ngi ci quartier bi ñun euh, ñetti jàkk yëpp imaam yeeg ñëpp day def si ñun waaw man mi nga xamee ne man suñu kër jàkkaarloo maam maam maam rek fa tabarakallah macha allah kon lii nga xam ne mi ngi ci jëm yal na ko yàlla may ndam te yàlla mi nga xamee ni buur la xale bu am yar la xale bu am teggin la waaw fa tabarakallah macha allah xay jeunes yi nekk fii yëpp moo leen coiffé kenn du xuloo kenn du xeex ñoom ñëpp benn lañu waaw ah, te moom itam xale bu baax la parce que dimbali nañ ñun waajur yi ndax bu fekkoon deful noonu kon atte xeex rek ñu nekk mais moom dafa ñëw defar quartier bi fa tabarakallah ba pare nag di wut lu mu terale ay waajuram kon yal na ko yàlla defal kontaan naa ci moom trop yal na ko yàlla defal jàmm te bu bis baa ñëpp ay génn incha allahu bi te dinañ ko defar ba mu baax waaw yàlla nag mu am ndam waaye yàlla dinañ rus ba may ko ko. am na solo ah. ba tey ah, ñu dugg kër Maama Lamine ngi nii ñu xool. mbër bi yeewu na wala yeewoogul mbër bi julli na wala julleegul mbër bi ndékki na wala ndékkeegul mbër mi nu muy def mi waxtaan ak euh, famille bi ba tey xalil topp ma ñi kër Mama Lamine numéro 2 Mama Lamine ngi nii de mbër bi lañ seet si de mbër baa ngi nii de loolu la 31 décembre ngi nii de kii moo war a jàmmaarloog ak armée numéro 2 journée Ndiaye production xalil ba tey topp ma l'enfant chéri de Jaxaay salaam salaam néeg de gaañ boo fay dugg da fëgg. néeg trois fois lañ lañ ñu jàngal ah. ah xale. deux trois dégg nga ma entré de salaamaaleykum. maama la mii numéro deux ci la ne. mais tey orange nga de nu demee nii nga. mooy yoon. ak am jàmm. maa am jàmm baax. yow yow. man yow naa dem antenne mat naa bi. Ah. waaw. eh damay jure ma ko fonk. di soog a tëddi gaan ah ñun waa Kër Sëñ Tuubaa. ndeysaan waa Kër Cheikh Ahmadou Bamba. Uh-huh. nga pare wala ndékkee non damay laal léger bu demee ba ñëw laay dem saa la la bu demee saa ba ñëw laay ndékk quoi. instant bi da tuuti rek ñam tuuti rek. Ah. léegi Sall lañ jëm nii ah. waaye incha allah waaw. léegi gaale bi ma nekk nii. léegi gaale waaye nii sama gaale maa waaye. léegi cumbukaay bi la wala neem bëri na. ah léegi cumbukaay bi la wala neem bëri na. wala neem saa yi. ajo xaril Maama Lamine numéro 2 war a jàmmaarloo ak ki nga xam te ne moom mooy Armée 2 mu nekk journée boo xam te ne le 31 décembre. journée boo xam te ni date bu baax bi date historique date boo xam te ne àdduna ñëpp ko waroon a bëre mais malheureusement le promoteur numéro 1 capot bi Fallou Ndiaye dañuy ànd ak Maama Lamine. te fayoo ko dara mu xott la gémmiñ jëmbat yi aw la quiero.

combat espoir Siteu bu anti dina ci bëre ak kerte bu mooy ñagas ñagas 2 dina ci bëre mu nekk combat yoo xam te ne ñagas 2 dina ci bëre ah mu nekk combat yoo xamante nii ah. ah. <laughs> Mbacke Faye doo bàyyi sa kii yow sa ruube yi ah, ah Mbacke ko ziyaara mu nekk journée Ousseynou Laye moom it mu war cee bëre ak kerte moom mooy rëm mu nekk combat yoo xamante ni daal mi ngi sunu kanam Fallou Ndiaye le promoteur numéro 1 borom la 31 décembre gannaaw ba ñu suivre ay entraînement dañ koy bàyyi mu ne ñu dugg ci waxtaan maama maa ngi lay ziar. waaw mais Fatma Dia maa ngi lay fay. ginnaaw auzu bilaahi bismilaahi inna waa ni yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla jërëjëf Serigne Touba maa ngi sant samay waajur xam nga di sant euh, ñëpp di sant kilifa diina yëpp di ñaanal suñu Muntaxa suñu borom bàyyi ko fi waaw di ñaanal sama wasila mu yàgg fi lool Mbacke Balla Aïssa ci ay dara Mbacke bàyyi ma karam waaw maa ngi koy ñaanal baax waaw di ñaanal suñu daam faat itam xam nga suñu borom bàyyi ko fi bés karam waaw maama Lamine borom la 31 décembre dañuy ñëw ci li nga xamante ne moom moo ci combat bi maama ñaat combat la. man waa Farma am na cinq combat. la am sama combat yi la sow ñaax. Petit Lo moo la freiné. moo ma def waaw moo ma jox defee waaw. ok Petit Lo freiné la nekk combat boo xam te ni dañ ci am déception seet si nañ la ñu gis maama jooy génn ay xéwal boobu lan la woon. waaw combat boobu ginnaaw mën naa ne moo ma def mbër parce que. combat bi mos a daj ay coono yu métti métti métti métti waaj combat yi bu baax a baax baax lépp lu war ci laam yi def naa ko waaw xëy na côté am na côté boo xam ne amoon lu ci manqué woon na quoi mais ñu doon jéem a fàttali lépp mais xëy na suñu borom noonu la ko bëggee woon suñu borom moo ne woon xam nga si sama combat ak Petit Lo si laa ñàkkee mais nekkul woon lu ma lu lu ma yaakaaroon nag quoi nekkoon lu ma bett lool lool lool parce que mosuma yaakaar ni dinaa ko ñàkk si combat boobu noonu quoi waaw moo tax ma ñàkk ko sant si yàlla bu baax a baax nag quoi te xam ne combat boobu moo ma def mbër nga def cinq combats ñu ràññee la fii ci jaxaay wax dëgg yàlla nga bokk ci meilleur espoir yi ci mbooloo ci ci côté yar ci li nga xamante ni moom mooy tam say làmb mais ñu gis ne depuis lors maama jëlul ay combats am na ay combats ñu ko doon proposé lan moo taxoon depuis lors nga toog sa ruq da nga doon defaru wala euh, adversaire ñu la doon proposé moo la neexul lan la woon. Pra toog ma sama ruq sax ñoo ngi ma doon wax ay adversaires yu bari ah mën naa ne adversaires yi ñu ma doon wax. moo gënoon sa combat bi ma jógee ak Serigne Touba parce que avec sëñ doon wax bëri na trop ñu nekk na mais gars yi am na ñoo xam ne dañ doon wax bu ñu demee ba ne d'accord nañ bu demee ba ci ba ci biiraat newaat arrangé wu ñu xam ñu nekk di xoolal leen nekk nañ duma lijjanti duma adversaire ba sonn si diggante bi nag xam nga amoon naa fi benn choc ba damoon ci loxo quoi ci ci ci baaraam te na nag téyoon mu tuuti ma doon bàyyi ba mu wér léegi ba mu wéree après xam si di daanaka si bi muy avant muy wér si laa jëlee combat bi waaw ma nekk di si préparé nii quoi. nga jël combat bi nga jël xale bu mën a bëre xale bu ës muy Armé 2 nekk parcelle Rock Énergie Mama Lamine nga dugg Rock Énergie duggaat Rock Énergie du risque. no du risque parce que làmb lañ nekk si làmb lañ nekk quoi xam nga daanaka fii de euh, bëriwuñ si àll fii la ñuy bëree kon donc fii écurie yi dañoo jegewoo loolu dañoo mën ngaa dugg ci benn écurie yi génn fa duggaat fa fa duggaat fa mën demee noonu. mën nga tegal say combat boo xoolee am na si yenn mbër yu mag yoo xam ne seen combat yëpp yu si bëree ba daanaka dañuy dugg waaye génnaat duggaat géej waaye génnaat loolu da ko donc loolu rek. ki ngay bëreel xam nga xam naa xamul làmb nii mu ne euh, Lo dina ko jox kële bi mu ne moom xam na la bu baax bu dee bëri moo la ko dàq bu dee xeex moo <laughs> na xaar xaar na xaar boppam rek na xaar boom quoi waaw comme donc comme dama taxaw si ñëpp ne leen dama juum sama combat bi passé mu nekk tamit ndogalu yàlla loo xam ne suñu borom dogal la léegi suñu combat bi bi su ñëwee ak jàmm dinañ xam ndax man dama dama peut-être ko jox ko dañ xam dara incha allah. bu jàpp ni combat a ah, yàlla baax na yàlla baax na bisu incha allah war a xam li ma jugee métti na ma. day xeex day bëri. waaw baax na far far man dama man gis man ku siraan samay samay combat arène dama lay trompé. man sama bëri wanee guma ko sax bak sëñ Touba ba nii nii booyee xamal lañ may toppee dañ may saaga di ma waxul ndek ngir yàlla boo ñëwatee làmb baal sañu dóor la bu nga bëgg a dee ngir nga bëri parce que bëri bi lañ bëgg wóor na yàlla jàpp ci kàddu bëri yaa ko dàq bëri te moom nee na moom li ñu bëree doo ko bëri ndax ndoxtu bëreem dafa jéggi de man ba may dugg ci làmb lañ ma doon tiital xeex xeex lañ ma doon tiital bak sëriñ Touba Mbacké xeex lañ ma doon tiital ba may dugg ci làmb ma dugg ci làmb am sama combat yoo xam dama si wan a jom fu laak fayda wana si lépp lu si lu ma si war a wane ñu mujj gi ñu dem ba mujjee tournoi waat naa ma léegi baal xeex bi dina bëri kon donc yooyu moom du du problème quoi. mais Armé 2 ñu gis ko ci cadre bëre barki Dembo Ndiaye su ma jublu ci victoire la jógee. waaw am problème victoire jógee waaw. ko. Mhm. moom am na ay erreur yu muy def. erreur non amul benn erreur. amul benn erreur. point ah? <laughs> mën na lépp. mën na lépp. mais ñuy seen jàkkaarloo daf la ñeme nag. tëkku la macha allah kenn du tëkkuwaate sax mais waxit la xam nga wax yow. agressé la ne yow doo ko daan wax explique ñu gis confiance bi muy dégager ak nim la ñeme. waaw ba làmb jee dana da xam ndax ñeme na wala ñeme ma bu làmb jee nga xam ndax ñeme na wala ñeme ma bu yóbboo lu mu waaj doyul. lu mu waaj doyul te xam ni man maay ci bu baax. ci ban côté ci lépp lu mu waaj doyul Faro man fii la rek mais boo yooyu noonu noon noonu noonu buñ génnee si cadre làmb sax buñ ko sekkee si leneen tamit du baax ci ñoom ba suñ bàmba. ngeen tëjoon wàccal wàccal wàccal armée wala wàccal kii maam. armée booy maa ko téye armée fi muy entraîné Kër Ndiaye Lo dafa nekk guddi gi ñoo ngi koy gis dafa nekk guddi di di si diin yi maa ngi waaw di ko gis Kër Ndiaye Lo nekk booy nor nañ fa dem mais man maa leen garaawul jor ko. ah booy sax ñooñu faa dem tamit. waaw yow booy armée bu ma bëggoon wàcc diin yi suba suba du fa entraîné parce que Serigne Touba barki alxuraan bu ma bëggoon wàcc diin yi suba suba laa du fa entraîné. lan moo tax nga daa dama ko xam rek da nga ko wàcceel armée wàcceel maama ay géem la ci biir ci biir wóor na yàlla. da ah, daa mën a yem ak man mafia. armée daa mën a yem man mafia. non non bokkul sax man bu teg bi laa de. dof waaw dof ñaamaay laa de wóor na di nar naa métti kon baadu li nga rëccoon ci poteau yëpp ci moom nga ko nar a fay. ah nee ma dédde waaye eh. si li ma jugee ànd ko na ma trop bu mu si génnee yàlla suñu borom métti na ma trop. mét na ma trop laa la wax combat boobu laa booy taxaw di wax ma li ci combat bi sax bu sama rongoñ mën naa tuuru. kon bu ma ñëwee na bëree ma ngir Patuloo de non non. ma ëpp maag Patuloo maag Patuloo jàll na pare la la moom. tamit boo xoolee Patuloo. waaw amul amul problème. amul problème ko indi parcelle yëpp. de mii nii di bu ko neexee na ko indi amul problème. ak na ñëw. nekk ci ginnaaw bu la neexee sax ñu ànd ak moom ci biir géew bi garaaw. que waaye doo woo Modou ma ne ko boo ñëwee nga ànd ak ma ci biir géew bi loolu dafa par rek. confiance bi ngay dégagé da jàpp ne adversaire bi yaa ko. non dégagé ma confiance sax xam rek maa ma entraîné xam bu entraînement sa bopp xam sa bopp da ngay kontaan waaw man loolu ma dal na damaa kontaan instant ni <laughs> gis nañ tamit ba tey euh, Mama Lamine dafa firi par rapport ci adversaire ci adversaire bi yow nee nga ma adversaire yi ñu la doon jox moo gën a tàng armée de. loolu moom wax la rek. wala rek mais Armée 2 de maa ngi koy waaj comme ni may waaj yenn combat wala sax nu ko raw non combat la comme yeneen mais xam nga juge si defet ak juge si victoire mu doon benn waaw ba juge si defet nag nga xam lay xaar xam ni axlu làmb ba parce que ñun Fatma ñun suñu borom moo ñu dimbali quoi def ku ñu wax suñu combat ñaata combat lañ def ak suñu coowu làmb suñu tool da nga naan noonu lii mënul nekk lii mënul nekk sama affiche yi ba mu génnee ba ñu gisee cinq combat dañ ne maama la est-ce kon kon liñ lay gis yëpp cinq am bu wër na yàlla dama doon rusa di defar def affaire cinq combat dama ko doon dagg ba ma koy def statut wóor na yàlla caaxaan parce que suñu borom moom mooy na tollool doomu aadama quoi mais xam nga jóge si defar ak jóge si victoire mu doon benn waa adversaire doon bëree ak kii ban différence am est-ce que bu mel ni kon Armée 2. ba adversaire ah, Armée adversaire bu ko gën a sopp Balla 3 waaw Balla 3 mu gën a sopp Armée 2 te Balla 3 Balla 3 naa am ak moom ba li ma koy daane jàpp jàpp ma ngeem. jàpp ma ngeen mu jàpp ma dara. wóor naa kon bu may dégg ay gars yi naan affaire de gaawaay wala affaire yi nii nii waaw amul problème dégg naa gars yi ay sama tàng amul problème. barke alxuraanul karim naa ko may sama tàng bu ko bëggee. bu jàpp ba dëggër parce que Serigne Touba Mbacke na ko bëreel. kon nar naa feeñ. waaye yow <laughs> damay bëri si damay def lépp wóor sëñ Ba damay bëri damay xeex ci xeex bi nag. ne la ne la xeex laa bëgg ñu ñaar est-ce que dóor mu tëdd wala dóor mu daan woon na fa. mu tar ci moom bu tar ci moom rek eh. xam naa li ma entraîné entraîné baax na. bu laa ma jaar dañuy xool kan mooy arrière. mais sañ nga koo su lee match ko. Ah, moom baax na kon day kon day gën a gaaw rek. kon daje bi ah. di moom si si si loolu moom ça dépend ci moom rek. moom ay combat am day gaaw. waaw amul man mosuma bëree lii nii mosuma bëree une minute wala genre yooyu man sama combat dafa gaaw. Taka la de. ah Taka la waaw pare man tam ku xool samay combat attaquant la man sama benn combat laa bëri taxaw. bi sama combat bi passé. moom calcul bi pas calcul sax dama ñëw indi sama laam man mosuma am habitude boobu man bu ma boo ma fekkee contact may entraîné sax ku may bëral damay dox sa kaw. même sato ku may bëral damay dox sa kaw ku may sato damay dox sa kaw mais dama ñëw combat boobu indi sama laam ba pare ma ñëw ba ci biir stade bi. paa bu ma romb wala mbër bu ma romb barki damay romb instant bi benn supporter woo ma su yuuxu ba ma wuyu ko mu ne ma nii léegi nag jàppoon lu waaw dama jàppoon ne lu ñëpp wax muy dëgg ak ma bëre ko ma entraîneur yóbbu ma bi passé parce que amoon ak ñoom benn genre réeróo barki Seydina Muhammad maa maa sama xelu bopp. wala yaasim. non waaye waaye instant yii <laughs> ah non non non non non man Baye Fall la man ku ma xam sax man bu cadre micro génnee nii nii man ma sax jukkoy jukkoy mbër. bàyyi Serigne Touba faa moom mën naa ne man lu ma yàqal si làmb mooy ñàkk daw nit man mënuma daw doomu aadama wallaahi azim man mënuma loolu. ngay bëri le de décembre bari ko say moroom ay espoir yu mag nekk fa kon ne fa maam la nekkee ñu ci côté mobilisation lan lañ mën a xaar. waaye yaa ngi gis booy nii. Ah, kon jeex na. noonu rek ay excuses. booy booy booy dañu ngi préparé te bokkut ak ñi sax am na ñeneen xam nga ku nekk rek ak si li nga ak ak ak ak rôle bi ñu la jox quoi loolu demee ma booy yaa ngi waaj carrément est-ce que kàttanu yàlla njaay dina kontaan bu soobee yàlla. kon duñ la ëppale dara. non làmb ji ma koy tëj nga naan nii man damaa xool grand combat bi. duñ la ëppale dara. waaw man damaa xool grand combat bi nga naan nii. dégg naa sa adversaire bi. waaw amul problème. dégg naa ko de. <laughs> waaw noonu lay demee sax noonu lay demee. bu bëree pare waaw mun naa bëri sa xool ñeneen na ah. mun naa bëri sa xool ñeneen. Farma lan moo bëgg bàyyi suñu baamu. aywa moom Lamine numéro un lan mooy seen ñu gis yéen ñaar fu ñu gis yéen ñaar yéenay ànd affinité bi. sama deret la sama gaan la suma waay la la ñuy waxante moom lu ne la ñuy yebante seen waa gaale bu ñu ma déggul sax dañu may woo mën naa ne seen waa gaale lañu may woo sax moom mën naa duñ ko déggante noonu dañuy déggante naay sama waay la sama gaan la sama lépp la. barki yàlla kooku du du cadre du cadre ay ay ay xaalis am combat diw jox la lii wala genre yooyu séntu ma sama diggante man ak moom ak loolu quoi coofeel la rek ak mbëggeel bu si bu si lalu quoi loolu la. sax moom même bu amaat double woon médical du bëri parce que yaayam dafa feebar affaire yooyu ñu ngi naan maama maama Lamine ëllëgu maama Lamine. waaw maama maama Lamine gis day dund situation yi métti na te ak lu la am xama ko quoi xam nga tamit gis nga amul lu waajuram quoi balaa nga xam si waajur mooy lépp. far ma sa waajur woon la ginnaaw ak sëriñ Tuubaa moo bu ma gisee xama ki nga xam ne maanaam day am di fàtte waajuram wala di lekk te doo fàtte sa waajur man du ma xam ne quoi far ma dama bëgg sama yaay barke sëriñ Tuubaa man sama yaay mooy sama lépp sama yaay mooy sama àdduna sama yaay mooy sama lépp barke alxuraanu karim wallaahi asim billaahi wallaahi sama yaay mooy sama lépp gis nga Mama Lamine ba ñu bëre euh, contre kii nii combat bi passé man maa ko woo forcé ko jëli ko ñëw ne ko kañ dem ma jël ma jël benn benn lii sama koñ pour nga nekk fa boo yëpp di ko woo pour mu ñëw ñu dem ba dañuy nekkee si benn appartement ñu nekk fa ñu nekk fa nekk fa nekk fa di préparer lamb ji mais mënul sax dem di li à chaque fois saa yu xëy nga yaakaar xam ne moo ngi a faj maire ne moo war a dàmp maire ko def lu nekk maire bi mënul mënul def dara mu ngi tëdd rek jàpp ñaar mu ngi tëdd rek loolu dafa dafa dafa metti dafa metti yooyu ko dund te et puis maanaam xam naa li waral mënul préparer combat mooy ko maanaam bruit beeg genre yooyu am yoo xam ne àq la àq la waaw événement CNG bi nan nga ko gisee benn butéel bi. waaw loolu nag xam man xëy na comme mbër bu ndaw laa moo waroon du ma si bëgg di sawaroo quoi parce que comme ñi ñuy féete mag ñoo ko dem fenn mais am loo xam tam du yoon parce que dafa am mu baaxoo quoi làmb dafa nee xam waxtaan xam kafre image yi dal noonu loolu dafa neex. dafa neex quoi mais imaginer benn butéel benn li dara da ngay am sa làmb li ñu lay fay comme exemple quoi nga bëre ñu fële si benn 100000. yow nga dem jël quatre cent mille defaa ko ci imagine nga dem su ku nekk mooy la bi may mujjee ku nekk mooy la bi may mujjee la yow nooy def yow mi mbër bi da ngay joxe te et puis itam dëgg la làmb bu doon làmb bu njëkk ba nga xam ne bu doon làmb kese ñëw ngeem rek bëree kon boobaa bu doon loolu kese la ñun dañuy gënal mais làmb dafa am lu mu baaxoo léegi yow la gars yi léegi dañoo génn cadre làmb léegi yow boo nelawee defoo dara sax gars yi yow xam nga yow sa carrière la ñuy yàq gars yi léegi bàyyiwuñ yaay ba lu jur bàyyiwuñ mag boobu boo bokkal bàyyiwuñ ki ngay ànd ak galaaj ñëpp lañ jàmm mu doon làmb léegi nekkatul nekkatul lii quoi le sport léegi beneen beneen beneen lii la quoi moo tax dafa metti gars yi nañu comprendre ko te xam li ñëw état yooyu yëpp du ay cadre li daan bëri yu bëree bëri ngir yow sa muccukaay la bi Fallou Ndiaye. non kooku amul lu may wax lu ko ñaanal rek gudd fan ak wér gu yaram ak Serigne Touba Mbacke dama ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram suma père la suma lépp la Fallou yàlla def xam nga gis a Fallou yàgg naa yàgg naa bëri ay combat mais boo laajee ñi ma jegal nga laaj samay entraîneur saa bu ñu musaan wax promoteur musaan dama naan dama naan la carrément Fall Ndiaye laa bëgg mu may tëggal barki alxuraan kër moom aussi yàgg naa bëgg samay combat mais daawul daawul daawul daawul antu wër na yàlla kooku suñu borom moo ñu boole quoi du kaar dara du lenn amul lu may wax ci moom waaye. ah oui dina kontaan dina kontaan si kàttu Ndiaye parce que lépp lu war si combat dina ko def bu soobee yàlla. am na waajal rek Pape Modou Diouf doomu Nogoy Gaye ak Mor Diouf. waajal bu baax. bak sëñ Bamba waajal bu baax a baax a baax a baax. billaa wala te loo waaj loo waaj doyal Pape Mor Diouf ah. xam na su tudd. yaayam Nogoy Guèye ak papa Mor Diouf xam naa ko de. topp nga ko de. di Moson <laughs> xam naa ko de waaye na wàcc man pare naa barki sëñ Bamba pare naa. laay la Fapal nga ma ñaxee ah, kon jaana. waaye tour Saint ba def pare naa barke Sëñ Bamba Mbàkke. pour rendez-vous bi ah mu nekk mardi le 19. vendredi. mardi le euh, mardi le kii nu mu sax mardi le 19 novembre. mardi. Ah, mardi la waxal rek mardi rendez black and white waxal. waaw black and white. mardi le 19. décembre. à partir de 17h. à waaw mais xaaral ma damay tàggoo de damay damay damay damay woo samay nit nga may far ma li li ma woo sala <laughs> li may laa li may bëri ji. kon wóorul borom Mbacke ngir yàlla na te yàlla. te yàlla tax na ngeen ma ko jëlee. na ngeen ma ko jëlee ngi jëm Serigne. ah baax ngi woo waaw ki njëkkee Baye Jili Baye maa ngi koy woo sonn si laam trop waaw. Baye Jili maa ngi koy maa ngi koy woo. bu jaatu problème yaa ngi bay jiri tarki daa bu maama bay jiri bu maama ne bay jiri sonn na si comment trop maa ngi koy woo billaa walaay tax di ko ñaanal jàmm ci moom rek di nuyu sama jigéen ma xarit koo xam ne moo may toog a réel fay maa ngi koy nuyu moo jëkkëram nag sëñ Bamba Mbacke waaw maa ngi bu baax di wax kontaan naa per Kamu maa ngi woo si làmb ji moo Gueye président mouvement ànd liggéey Sénégal waaw waaw moom waaw moom maa ngi koy woo nee dina ma recevoir fan yi maa ngi woo bu baax ne di jàpp si liggéey El Hadj borom Amérique maa ngi koy woo bu baax moom mu jàmbaar la bilaay walaay talaay sama combat ma pétrole dama daana ba pare mu woo ma këram réel ma xar barke sëñ Bamba ngir lekk pour ma soulager quoi waaw moo xaritam Ali Ali maa ngi koy woo baax baax Omar koo da siy jàpp barke sëñ Touba Mbacke da siy jàpp lu baax a baax baax sama waay ko sama deret la Ibrahima Ibrahima Ndiaye politicien maa ngi koy woo bu baax a baax maa ngi koy woo euh, Mame Mbaye Canada maa woo ko moom xam na xam naa maa ngi koy woo baax a baax a baax Adama Diagne borom waaw borom camion yi maa ngi koy woo baax a baax sama waay moo si jàpp di ma yóbbu entraînement maa ngi koy woo baax baax bu taali Fall moo ngi ne Italie la jógee ñëw pour combat bi moo ngi ne maa ngi koy woo combat Alpha maa ngi koy woo Gora Gueye kooku ñoo defandoo lépp mais sama waay sama xarit la moo sama mag la woon Rasoul borom camion yi maa ngi koy woo baax a baax Ablaye Silla maa ngi koy woo baax a baax jàpp si blog yi waa waalo tamit waa waalo aw ma seen fay maa ngi leen woo ñun ñëpp per jaata maa ngi woo grand Cheikhou Alma 2 maa ngi koy woo mu jàpp ci combat bi Ibrahima Diop promoteur sama waay la bëgg naa mu waaw bëgg naa mu jàpp ci combat bi Kanji moom tamit ne voilà ETDR moom tamit nee na dina jàpp ci combat bi waaw maa koy woo mu jàpp ci combat Siteu borom nay dëgër itam waaw Siteu maa lay woo bu baax voilà Siteu jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax waa Colobane tamit ñoom Umar ñoom Umar Colobane ñoom ñoom ñoom Fallou ñoom ñëpp maa ngi maa ngi leen woo ci combat bi ñu jàpp ci bu baax a baax buso maa ngi woo ci combat ba di woo di woo di woo sama mafia bi di woo sama mafia yëpp di woo booy nekk ci staff bi ah waaw xaadim borom camion yooyu tamit maa ngi koy woo mu ngi si sàll maa ngi koy woo combat bu baax di woo sama mafia bi booy nga xam ne ñu ngi sonn baax baax ñoom Balla ñoom mbay Mbaye Mina ñoom Baye ñoom Grand Gilles ñoom Lahat waaw ñoom waa Paka Lambaay ñoom Aliou Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi bu baax baax di wax ne ñu ngi jàpp ci affaire bu baax ñoom di woo waa Jaxaay sama maire koñ yi jigéenu koñ yi nga xam ne ñooy togg def lépp booy azuko yi ñëpp maa ngi nuyu sama paay maire yi Ouma Sène Faye barki Serigne Touba Mbacke di ñëpp sama mafia yëpp maa ngi bëggee ñoom Massamba gars yi yëpp waaw. Kulim Doomatal. Kulim mais sama open presse le 26 la. incha allah le 26 la sama presse club bi tamit dañuy def tànn biir la samedi biir ñëw waa Kewel dañuy ñëw. non dañuy ñëw yow waaw noonu demee da nga naan ku mën Baara Mbaye nga Fane Fane Fane Fane. kontaan naa ci yow sama Baara Mbaye. <laughs> waaye. Ndiaye production présente le choc des guerriers. salaam mbokku amateur lamb yi le 31 lay doon fii ci arène nationale diggante booy Diop mi nga xamante ne bii déggagul muñal ak jaatu ngewel mi nga xam ne ku taxaw ci yoonam mu fel la jàll ndaw combat bu rëy le 31 décembre ak Ndiaye production fii ci arène nationale cay Ndiaye production.